waaw man la Momar Ciss euh, di maire bu Kër Moussa di candidat aussi bu Benno Bokk Yaakaar pour les élec pour élection au conseil des collectivités territoriales. waajal bi daal ñun dañ ko def rek euh, jikkoy soccet rek avant ñu ci yegg xam nga soccet moom balaa ñuy wax ne banque leen seen tànk fekk déjà banque nañu seen tànk ba pare déjà commencé woon nañu di ci liggéey yàgg na. ba ñu xamee ne day am booba sax xamuñu ñan ñooy nekk candidat parce que suñu devoir la en tant que collectivité locale en tant que membre euh, APR en tant que aussi membre Euh, Benno Bokk Yaakaar ñu jàpp ne aussi bokk na ci suñu devoir mooy li nga xam ne moom la président bëgg te muy défi ci ñun surtout au niveau de département vraiment ñu préparer ko activement ba élection yi bu ñëwee ñu mën koo gagner avec manière comme ni ma ko waxee léegi. te lii moo wax aussi te mën naa wax ne dafa engagé département bi yëpp mais plus particulièrement l'arrondissement de Kër Moussa bu ma ko waxee tey jii mooy Diender euh, Kayar Kër musa Pout pourquoi pas bien parce que Fandène fait partie de la communauté de la commune de l' arrondissement de Kër Moussa bon ñun ñëpp ñu bokk aussi fekk si suñu yeneen euh, collègues yi nga xam ne ñoo nekk ci yeneen département yi muy euh, arrondissement Thiénaba muy arrondissement euh, Noto ñoom ñëpp ñu fas yéene ànd ak la commune de Thiès pourquoi pas pour que vraiment au soir de 4 septembre vraiment que la liste liste Benno Bokk Yaakaar gagne avec pourcentage comme ni ma ko waxee léegi waaw. message bi ñu leen di wax mooy que déjà ñu xam importance bi nga xamante ne moo tax ñuy taxawal élection yu mel nii peut-être euh, xëy na miinuñu ko lool. ndax une fois mosoon na fi am lu ne xaw demee mais booy seet dans la sous-région mën nañu wax ne beaucoup de pays am na lu ñoo tuddee euh, institution bu mel nii moo xam appellation bi c'est pas important mais loolu aussi yaakaar naa ne euh, waxuma sax population bi mais particulièrement les conseillers xam nañ ci dara te itam ñu ngi ciy liggéey liggéey boo xamante ne euh, bu ñu yàlla mayee daal ba dimanche ak jàmm dinañu xam lan lañ doon concocté ci suuf non ñun moom mosuñu xalaat sax ay défaite rafet nañu njort bu baax a baax a baax a baax pour gagné bi moom xalaatuñu ko la ma daa la ma waxoon gars yi ci local yi rek gagné moom xalaatuñu ko pour pourcentage bi la ñu mënagul calculer te ñu ngi ciy def ay calcul tuuti <laughs> voilà merci. Euh, au niveau de Benno Bokk Yaakaar dañu commencer par def une tournée luñu tuddee laa ravane mais boo xoolee li ñu tax a jóg ñëwuñu ñëwuñu pour pour def campagne. parce que ñi ñuy fekk si ñoom dañ leen a wóolu nit ñi ñu nekkal dañ leen a wóolu jiital leen ñu am base ministre yi nekk si département bi le muy le ministre Augustin Tine au, au, niveau du département le ministre euh, Thierno Sansal ñoom ñu am liggéey bu am solo bu ñu def ni si département bi parce que boo xoolee douze communes yu nekk ci département bi pratiquement ñoom ñëpp ñëw nañu fekk ci Benno Bokk Yaakaar muy liggéey bu am solo donc ñun suñuy tànk tey du pour ñëw def campagne pour ñëw saafantoog ñoom pour ñëw delloo leen seen cër parce que bu ñu la jiitalee li la war mooy ña la jiital nga ñëw saafantoog ñoom wan leen ni jiital bi bi ngeen ñu jiital dañ ko yëkk dañ ko def muy suñu soxla lool tey moo doon suñu tànk mais ñëwuñu woon pour def campagne Euh, ñeneen ñi boolewuñ ci seeni bopp loolu defe naa ay wax la parce que ñun ni ñu tàggate ci politique bu la dara bett ñi ngay wax mooy xam naa ñi ñu jàkkaar lool joxe nañu moo door du ni da boycott wante ñoom dañoo tàmmal lu nga xam ni ba seen wax du tax ñu dóor suñu doom parce que dañoo tàmmal wax waxet duma duma ci yàgg duma ma ci sori saa yu e, e, élection su jotee dañuy wax dara waxook seeni nawle waxeek sénégalais yi ba njëlbeen bi ñu dellu gannaaw donc ñun seen mot boykot bi du ñu engagé parce que am na sax ñu ñun lu ñu jot a dégg te loolu bu bu amee dina tax que yi ñu gën leen a weddi parce que gor sa wax ja am na ñoom lu nas nañu boycotté bu ñu demee ni ba jaaxle parce que boycott bi dañoo ragal moo tax parce que référendum bi Sénégalais surtout département ni de Thiès dafa am lu mu wone dafa am lu mu wone mooy dañ leen a weddi dafa am lu ñu wone mooy wóolootuñ leen dafa am lu ñu wone njiit bu buñ la jiitalee dangay toog sa wetu la jiital département Thiès wane si si le référendum jox nañ leen gannaaw donc ñu ragal nag bi yoon parce que bi yoon bu ñu demee ba nërmeelu dina leen yàqal lu bare bari looloo tax ñu joxe moo de ni de boycott mais ñoom ña ngay xool seen biir nu ñuy def noonu nag ñuy def ñun duñu bett parce que nag dañoo yàgg ci làng bi xam ni ñu yar ñu ci politique bu la dara bett ci politique te loolu ñuy nas buñ ko demee ba def ko sénégalais yi dinañ leen gën a weddi ndax gor sa wax ja doone dama boycotté bu ëllëgee nga ni ah dem leen wootal keneen ku leen neex loolu dootu boycott. loolu la ñuy séntu si ñoom nag loolu nag la ñuy séntu si ñoom moo tax man di gor sa wax ja boo nee déet du ma nee suur naa suur naa si ndab li ba jóg ñëwaat di jël sama loxo di ko delluwaat si biir ndab li wasalaam.